ku nekk dafa am contexte man boo gisee sanction Cissé Lo man gisuma ko mais dama ne contexte troisième mandat bi nga wax kenn ku ci nekk am nga si am nga si gis-gis mais li may wax mooy ki ko wax mooy responsable la nekk biir Ranérou fam ko doon waxee mooy milieu bi nga xam ne tey fan ko doon la ñu doon lakk alpulaar la ñuy lakk pour wane engagement wane détermination pour wane volontaire volontaire pour que le président mën a defaat troisième mandat loolu moom moo wax en tant que responsable mais loolu dafa nek wax bo xamné ne engagé wul suñu parti bi nga xamné ne ñoo ko bokk ndax bu doon tay jii porte parole moko wax kon engagé na euh, notre parti ou bien la coalition Benno bok Yaakaar mais ki wax moy responsable bo xamné tay dafa dëkk Ranérou am gis-gisam nak ci doxalinum réew mi te ñu xam ne nag tey na Sénégalais yëpp xam ne du ay jaasi mooy fal président Sénégal ba mu nekkee Sénégal ba léegi képp ku fi mën a falu élection yoo mën a def carte électeur moo lay fal waaye du jaasi. nga mbirum troisième mandat muy man muy président muy képp ku mën a doon réewu Sénégal dafa am justice te jàpp naa ne war nañ am confiance ak justice ñun mën nañ ko bëgg président bañ ko président mën na ko bëgg ñun ñu bañ ko. problème bi moy tay nañu xol kérok bu président Macky Sall amé sept ans bu ko wañi def ko 5 ans bañ ko yobbo conseil constitutionnel dañu né carrément que ne li mënul nek sept ans yiñ la fal mom ngay continuer c'est la même chose tay di ci walum conseil constitutionnel man duma juriste mais jàpp naa ne tey conseil constitutionnel mo wara wax mo wara jël décision ci walum 3e mandat wala 2e mandat problème 3e mandat problème boo xamante ne ki décider qui ko xam ne moo valider c'est le conseil constitutionnel te lépp lu mu wax defe naa politique wala nga nek sénégalais lambda war nga d'accord ci décision de justice Bobu.